eh <laughs> eh xadi xadi gën a faas eh xadi <laughs> eh. xadi xadi xadi bàyyi ñàngal yi kii Pape Diouf sarax la rek léegi kaay wax ñu yow la metti xadi kii moo nekk ci làmb yi kii de bët ku dof doful ba sàcc wayam eh Pape Diouf eh. <laughs> xam nga yow sa jabar dafa sew gis nga xadi mi gis nga kanam gi kii nga xam ne woor na yàlla moog saa njoogu benn lañu wuyu eh xadi ay eh, jawaru Pape Diouf kii bu toogee sew da boof <laughs> boobaa da nga xam <laughs> waaye xane kaay waay salaamaaleykum dafa am loo xam ne nag wax fa dëgg yàlla dañ ko war di wax sax ci dëkk bi gis nga Papa Diouf mii nga xam ne moo fi way Diofior arrondissement bi ma ko njëkkee dégg mu way ko dama ne waaw moom lu muy def ni ñu ne ma dafay woyantu rek singal la ma ne luy singal luy singal ñu ne singal mooy nga nga nga war a génne kaset génne ci benn morso sànni ko ci mbedd bi nit déglu ko waaye nekkagul kaset ma ne kon kat kon kiitut kon kat garaawul xëy na man dama koo neex ma déglu way bi mu way abondé la cat au lieu mu wax Abu Ndella Thiam mu ne Abu Ndella Ndiaye te kooku sama géer la boo xam ne ñëpp xam nañ ne Abu Ndella moom muy way ci cassette bi kooku bokk na ci koo xam ne tey bu ñu xamee Diofior moom la ci jàmbaari yoor yi la bok mu naan Abu Ndella Thiam Ndiaye bay yi mu jal jàll Pape Diouf yëkkati arrondissement Diofior boo koy way tey tamale ko ci séeréer tëjee ko ci séeréer waaye dugal ci ay xaritam di sama mbayaan ci suñu ay way yoo xam ne ñoo ko moom tegu ko fen loolu nag du yoon ndax Papa papa ju ku ñëwoon ci man dinaa ne ko way bi balaa nga koy way nii nga koy wayee lii nga war a def way bi wayu jinne la de gisagul dara wayu jinne la jinne yi ñoo ko wayal joof yoor ndax joof yoor dafa nekk dëkk boo xam ne dëkku de de dëkku saltigi la joof yoor bu nawet bu nawet musaan dik ba ñuy ñaan suñu suñu borom rok seen mu wàccal ñu taw bu neex buñ ko bëggee bégal dañuy woy joof yor dafa am noo koy woye joof yor balaa ngoo koy woy danga war a génne gerte gu bari teg ko génne dugub ak soos bu bari moom Pape Diouf yëpp dafa ko jël te tegu ca war ngaa rey juróom-ñaari nag yoo xam ne da nga koy séddale ci dëkk bi ku nekk daa dee jël sa ñam macaroni bi daa dee jàll yëpp defu ko jékki-jékki rek génne kasetam di wax joof yor rek ne ful arrondissement way bi nii la demee amboye nga yattu ko na gene Sénégal woyo ka ande ko ni Diofior arrondissement dégg nga dégg nga ñii nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw di tëgg ñooy njëkk bakk ba pare bu ñu bakkee ba pare ba suñu juróom ñaari maam yëpp Abdoulaye Diouf Siré Diouf Ndela Diouf Major Diouf fat na fi ne faxa teg ne na séeréer tig na ak taxum tak na wara faxa dati ka waroo jëkki jékki rek taxaw ak say musicien li ma ci gën a metti balaa ngay xam ne Papa Diouf pare keroog ñëw na ba ci Diof côté Diofior di fa tëgg ki nga xam ne mooy xoma Papis Konaté mel ne mbër bu mbër daa dee faax tiit kalaave bi di ko ci dem ba ma laajte ñu ne bambara la la may kay tëgg munoon na woo munoon na woo ñi nga xam ne ñoo tëgg séeréer ñu wan ko nuñ koy defee waaye tey ay géeru di ko way rek bàyyi ñu ñun ñi nga xam ne ñoo fenti way bi dama ne way bi di ko Pape Diouf jëlee Pape Diouf moomu ko da ko saj dafa saj woy bi laa wax sant Diouf taxul nga jël way ku jaambur koo xam ne Diouf la sat ñun nag séeréer yi ñu ko bàyyee noonu ndax way bi ci boppam sama maam moo ko fent bàyyi ko ñu koy donante maa ngi degg ñu naan dura d'auteur laa war a dem dew ma benn droit d'auteur way bi ci boppam ki ko san ki ko san ki ko fent sama maam maamaati ma maam moo ko fent jox ko sama maam sama maam way ko bàyyi ko ma jël ko kon bu koy jël dafa war a taggu nañu jox ñaari million wax naa ko ci journaux yëpp na ma jox ñaari million su ma joxul ñaari million Papa Diouf xam ne rek ne fun ala no a seere na taxum tak na fa xana tak no ko na ko teet ko joof yoor maaga fax na kin fisen mbadan wara ko ndol ndol fi xana fisen mbadan nanga foxoda wa jooyo bato sene na ko bàyyi kasi wo ka foore ka andik na taxum tagara mbolo mo ko joofi yoor ma peka a joof yoor bi ka foora andi go toxa kandi go gana xoɗo job yore a ndege job yorna andi go bara naxe kandi go ade nañu jox soos nañu jox soos macaroni bu saf sax ak ñaari million gis naa jabaram nag dafa see wurut du ma ko boofee dina xam ne séeréer du moramu tukulër ah nañu jox mburu vermicelle jox ñu tamit ay ay ay kuddu yuñ ko yu ñu naanee supp yi ndax ñu cosaan bi ku ko way da ngay jox ñi nga xam ne ñoo way bi waaye jëkki yàkkamti ba baga de taxaw ci ak sewaayam mu taxaw foofu naan ay Diofior arrondissement ah maa ngi bay ba kenn taxawati sax ci animateurs yi naan Pape Diouf mu way bi moo tax mu neex ni Diofior a gasa ngi gonda ah abogo naa de kaku mboxoloo da te dañuy bëre de waykat yoo gis lamba dangay ngay bëre ni kajuwa naa kajo fi yor mbexe ba ñuy xëcc gaal bi looloo tax ñu wet ci wayi gaal bi wayi fecc xëccal mbaal bi ci ñun la fekk baax Joal Fadiouth lu mu am géej bu ñuy way dañu koy wayaale di xëccaale mbaal bi ni joof yor arrondissement awo ah ava koo ndiga maa ngi bàyyi rek ba mu taxaw lakk ne du joxe dara yebaati ba bëgg dee musiciens yi ko accompagner ki produire cassette bi télé bu teg clip rajo bu teg clip bi animateur bu ci wax wayu saltige de da ngeen di xëy rek seen boobaa ngeen woyee fi ni joob yo <laughs> arrondissement ah a baaxa ñaas a baaxa doof ya ah, a baax we fii ngay woyee a joob yor barragement o le nga fii fii ngay woyee a joob yor arrondissement woyee fi xam a joob yor arrondissement Pape Boyal a Diofior Pape Boyal a Diofior Pape Boyal a Diofior